Euh, waaw dem délégation bu ñu def Abdoul Aziz Ndiaye taalibe sëñ euh, Babacar waa Tiwaawan ànd ak magam Masata moonu woo Aziz nekk ki nga xam ne suñu nit la suñu kóllëre la démb doo ko ñëw tey kon tey ñun bu ñu ay taalibe Serigne Touba moom mu ñëw war a indi ay euh, teraanga ci biir Touba dañ koy gunge ànd ak moom ñëw ndax lu mu def ñun ñëpp la ko defal diine gépp la ko defal Tiijaan Laayeen Xaadir Ñaseen Murit lii mooy wan ni Sénégal ñun ñoo bokk ndey bokk baay kon xale yi war na gën a xoolaat ci mbir yi xoolaat xam ni kilifa yu mag yi ñëpp ñoom Mame Abdou Aziz da baax ñu ñëpp ñu sëñ ñu ñëpp nii na ne sëñ Saliou ñëpp doona bokkoon ndey bokk baay diine gi bokk ndey bokk baay kon lu Aziz def ni tey loolu tamit ci la ndax boole na tey lu bari waaw boo xoolee ñi fi ñëw tey Tiijaan na ngi fi xaadara ngi fi ñaseen na ngi fi laaye na ngi fi ñëpp ngi fi tukulóor séeréer ñëpp ba njaago yi sax ànd ci délégation bi loolu man ni Sénégal ñoo bokk ndey bokk bay kon Abdoul Aziz dañ koy ñaanal yàlla tamit sëñ ñu yaakaar ñun yal ko yàlla gën a jëme ci kaw ak njabootam yëpp ak famiyam ak magam Masata ak papaam ñëpp ak ñu fi ànd ñëpp ñi si ñëw ñëpp si délégation ñu ngi leen ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm parce que ñu ngi ñëw man ak Omar Sakho ñoo ànd Balla Gaye Lirou ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bay ñoo ànd ñëw ci délégation bi gunge suñu frère sunu lépp muy Aziz Ali Ndiaye di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal sutura defal ko xéwal bu ne yàlla na gën a mën lu raw lii ci barke Sëñ Tuubaa waaw sëñ Muntaxa yàgg naa ko gis xam naa ko bu baax boobu nekkul sax xalifa ndax man yàgg naa nekk sëñ mu dem sëñ Muntaxa sëñ Mouta sama sëriñ la sama xarit la sama lépp waaye nag kenn ku nekk kum la jox man nag sëñ Mouhamadou Habib Mbacke mooy suma lépp mooy suma sëriñ mooy suma ba a ñëw màggal ci doole sëriñ na ngi nii li ngeen def tamit lu am solo leen gisee loolu dafa rafet te dama leen di ñaan rek euh, bu leen kenn dugal ci lu ñaaw ay julit nunu ndax yow ma xiyam am na te boo xoolee fu mu toll nii àdduna jeex na ba pare nit bu waxee sax lu bon defar ko ba mu rafet def ko ndax yàllaa lay fay métier bi nga nekk si ngay jaamu yàlla kon yàlla na yàlla suturaal ba ngeen am seen tele bopp am seen lépp ci barke Sëñ